ñu jéggat ba ca jéggi Diop Assane mujj nañ ko bàyyi démb mu ñibbi ca këram ginnaaw bi mu nangoo fay xaalis bi avance na lu toll ci juróom fukk ñaar fukki million ak juróom ñett la teg ci taabal ji ñu doog ko bàyyi mu dem këram am na élément ñu dellu si waat alhamdulilah alhamdulilahi lazi sadaxanaa waxdahu wa awrasanal arda natabawwa minal jinnati haysu nashaa'u fa ni'mal ajrul aamiliina sant moo ma war waat sant nag war na ma sant suñu borom du jant bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam sant samay waajur sant sama wasila Cheikh Ahmed Tidiane Chérif radiyallahu taala anhu sant sama borom kër bi nga xamante ni taxaw na taxawaayu jàmbaar dëgg sant sama waajur sant képp koo xamante ni Sénégal jigéen jullit chrétien jàngu bi ñëpp ma yónnee ñaan man de Sénégal xaw ma lu ma leen defal man de président Macky Sall joxoon na ma deux secondes mu mën a participer à l'histoire de mon pays waaye tey jii tam aussi aw lu may wax sénégalais yi loolu baal leen maak ndax nag sonn nañu. waaye nag seen sant ak seen gërëm dama koy teg si loxo samay avocat waaye kenn ki nag muy ànd ak man courant di coupé dik mu toog courant di ñëwaat mu toog huit heures mu ànd ak man une heure du matin deux heures du matin muy woo sama borom kër di woo samay wayjur di taxaw à ah, maître El Hadj Diouf jërëjëf yow yaay yow yow yaay wane ni tu es l'avocat du peuple sama kanam mi ngi défendre ñoo xamante ni xamuñ leen ci kaaf bii la leen gis kaaf bii goro fii dugg taxaw génnaat te doo fen ndax kuy góor war nga ragal kaa ñu jël ay gris tegal la ko pour lan tey conviction maa bëgg Macky maa bokk APR maa waxaat maa bëgg Macky maa bokk APR maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di gërëm Sénégal yëpp ngi noonu kooku mooy jéggi Assane ginnaaw ba nag daal xam naa ni même lu ma ne xewi daal duggal na ñaar fukki million juróom-ñett ci ñu doon wax ni moom la jëlal Sénégal mu desul lëf bàyyi nañ ko mu ñibbi këram. waaw sant yàlla. bu baax. waa su su contrôle judiciaire lañ ko def. waaw sant yàlla bu baax ndax nii lañ ko waxee woon bu fekkee ni nee nañ ko yaa def lii mu ni defuma ko ñu ne ko yaa ko def ñu war koo tëj kaso bu ma nee fay na fay su mënta fay mu tëdd bañ mën koo fayal fayal ko mu génn dem. ndax oh. yoon moom yoon rek la mën a doon mënta doon lu dul yoon. ginnaaw sunu borom dimbali na ko ba am na lu mu fayee. alhamdulilah ndax lii yàgg na yàgg na di am nit mën naa feebar te ñu ne nanga ma koy faj. nit oh. ñëw yëkkati ko jox la nga faju génn dem sa yoon. Oh. nit amee na ab bor. Oh. ñu ne bor bi nangam la boo ko fayu dangay dem si kase bi ñu yëkkati ko jox la nga daal dem si kase te yoon it. dafa nanguloo lii. bu fekkee ne nañ da yaa jël lii man nga koo fay. Uh-huh. noo ko mën a fayee nga ne mën na maa joxe nangam war nañ laa maa ne bàyyi nga dem lijjanti leneen la teg uh-huh. mais jéegi joobi fi mu toll si politique uh-huh. ak fi mu toll si parti bu APR ak taxawaay bi muy taxaw si président Macky Sall man nii laa njorte woon ni kenn du ko tëj si ay vingt-huit millions trente ay trente million bu doon bu doon lu ko ëpp sax yaakaar naa ni du fa taxaw duñ ko si tëj ndax taxawaay bi mu taxaw daw jëm ci président Macky Sall ñëpp gis nañ ko te président Macky Sall war na ko ko mën a fayal. Mhm. même bu ko fayit war na ne eh jéegi mi kenn du ko tëj ci loolu bu dee loolu am joxal leen ma ko mu génn kaso bi. Mhm. mën naa nekk keneen mën naa nekk leneen ak leneen. Mhm. mais ginnaaw moom. taxaw problème bi kay mooy naka leen naka di wax du man ba pare nangoo fay. mooy li ma la wax. comme. Hmm? mooy comme. tey jii man am na ñoo xamante ni bu ñu leen tëjoon bu ñu leen tuumaaloon tëj leen ci kaso bi kaso bi bët bi seen nga gis kuñ fi tuumaal tëj ko lu mat ko ni ko ngay gis koo xam ne dañ koy jàpp tëj ko mu lànk ne du man fu mu jaar ne du man du man ñu tëj ko ba ba mu tëdd juróomi at ñu doog ne ko du yow. bàyyi ko mais nit ki nag bu fekkee nee na li yaa ko def nga ni defuma ko ñun la yaa ko def jàpp la wan la ni la preuve yaa ngi ni yaa ko def te yow leer na ne du yow nga taxaw taxaw fi nga taxaw bu la naree tëj ci kaso bi yow war ngaa mën a am ay taxawaay boo xamante ni danga nga jël nga fay ko. mbir bi nag avant garde à vue dem Assane boo seetloo ba muy jéggi bañ ciy dégg jéggi kese moom la woon mais après daas bi dafa dikk. ñam seqaloon mbir mi. waaw daal di ñëw. Mhm. ñoom it avoué que ni doon nañ jox. ndaw si loolu moo tax moo tax boo ne est-ce que du mhm. moom. xam nga loolu sax man parce que ñi ko ñi ko maanaam am na ci luñ téye. ba ne ko lii kat yow doon doon nañ jox ndaw si. am ay témoin non non demeewul noonu am ay témoin ah non waaye acca bisimilah acca maanaam dañ ne ña fa doon nekk si mbirum xaalis ñooñu la ñu téye. ñoom it danañ fay am na ñoo xam danañ fay ndax kenn ku nekk dafa am loo concerné. Uh-huh. ñoom it danañ fay comme ni jéegi fayee. waaw jéeg kat lii si sa poste la nekkoon yaa jël wala jëloo suñu yoon nekku si waaye sa responsabilité la fayal. waaw baa nga dem si kaso bi. Mhm. jéegi fay dem si kaso bi. waaye nangu nga loolu réer na daal. waaw dañ koy ah. waaw ah, fay rek baa baa ñu tëj ko ndax responsabilité la mën naa am moo ko jël mën naa am jëlu ko mais moom li mu taxaw wax ko gëm muy jëluma ko. taqeewu ma si laalewu ma si donte responsabilité am nag mu fay ko. bu ko mm. fayee ñu bàyyi ko mu dem mën naa amaat lu ëpp loolu bu ko liggéeyee. mën na ko amaat waaw mën na ko amaat mais képp koo xamante ni daal sa responsabilité si la dara jóge ñun la lii kat yow lañ ko dénkoon te lii si manque fay ko da koy fay mm-hmm. boo ko mun da nga dem lijjanti ji nga fay ko mais li mu def daal am na solo na jubluwaat ci liggéey bi te xoolaat bu baax communication bala ñu ko see pëtaxal ci mbirum communication yaa wax lii kat te war ko woon wax ndax fii la war a jógee yoon yoon warutut am si moom dogal. fii la war a jógee mooy. maanaam bu jógee ci lii yoon warutut am ci moom dogal ndax dafa am fu mu jëm. foofu mu jëm nag lu jëm si mbirum yoon da nga koy écarté def ne nga xàll sa yoon jëm fi nga jëm pour war faa mën a àgg te bañ am leen teg yoon ay wax dong ko fa mën a yóbbu hmm? ay wax dong ak jëf jëf waaw comme wax ak jëf ngay boole ba fa nga jëm waaw waaw wax da cee bokk dama ne comme wax da cee bokk waaye wax dafee bokk moo tax ma koy conseillé rek pour mu moytundu ko yenn détails yi waaw ndax yenn détails yi mën na laa indi ay problème te dafa am fu mu jëm te am na détails yoo xamante ni du mbirum xaalis bis bu ñu la si indilee problème mën nañ laa indi problème munoo fay ba génn ci. mais nag lii guvernement bi def it ñu ngi leen si encouragé. Mm. bu ñu def politik képp koo xamante ni tuumaal nañ ko ñu indi preuve ba preuve bi leer naa ñi ñu ne ko yow la bu ko nangoo fay nañ ko bàyyi mu dem fay. d'accord mm. d'accord ba mu nangu ni yow la loolu nga wax de ba mu nangu ni yow la. Hmm? waaw ba mu nangu ni yow la d'accord Ndiogou. Mm-hmm. Euh, jéggi de mbiram dooree woon na ca ba muy làkk ay pël naan sama deret ak sama nàngam ca 2S ca la ko commencé woon di làkk mm-hmm. mujj na muy wax ay wolof yu set wecc baat bu kawe mujj na jéggi di wàcc jéggi di wàcc ba bi yoon bi mu génnee moom daa sant rek ñu doon def ay conférence de presse yi ginnaawam mm-hmm. waaye nag dugal na ñaar fukki million juróom-ñett ah, mm-hmm. ñaar fukki la juróom-ñett baa bi yoon moom alxuraan sax làkk na ko waaw nangoo joxe ñaar fukki million ak juróom-ñett mu desu si la fi ñu ni ko demal ñibbi waaw waaw macha allah xam naa ne génn wax na ay aaya wan nit ñi ne moom du jaayil mhm. waaye xam nga alxuraan moom mhm. warta yam rek di ko wax danga koy jëfe mhm. dafa naa ni bu fekkoonte ni nii mu génnee di làkk aaya bañ ko joxee yëf ya noonu la doon doxalee tey jàpp naa ni kon kenn du ko woo ci ñi nga xam ni ñoom la ñuy wax ak luubal waaw parce que defe naa ni siraatal mustaqim moom ku ca tegu eh, kenn du la tudd ci luubal waaw bu ñu la ci tuddee rek dafa mel ni kon boo jàngee aay it mën nga koo bañ a dégg waaw way laa mën nga koo dégg ba noppi bañ koo jëfee loolu yëpp tamit aussi day am waaw dafay am ñoo xamante ni ñu ngi jëf sax te yëguñ eh, li ñuy jëf alxuraan la waaye ñu ngi koy jëf loolu nag dafa nekk loo xamante ni lu am solo leneen li ne mhm. mooy maanaam xam nga sensu nga génn. Hmm. nit ñi buy journaliste yi bu ñëwee di la tàllal micro dañuy bëgg nga expliquer leen. Hmm. mais boo seetee biñ ko tàllalee micro it expliquer wut. moom yëf yi ni mu demee. parce que loolu la journaliste yi moo tax ñu ñëw di ko tàllal micro. Hmm. ñëwaat na ci maa bëgg Macky Sall ak kii ak yi man maa ne Macky Sall mbir mi ma bëgg Macky Sall taxut ñu yóbbu la ñu. déedéet Macky Sall la nga ba mu demee laaj mu ko laajee Macky Sall sax. laaju ñu la mbirum Macky Sall. Hmm. donc boo bëggee jël affaire yi naan sa bëgg Macky Sall la tax loolu peut-être bu dee Macky mën na mën nga koo wat ba mu def ci dara kooku yaag Macky la mais ñi la woowoon woowuñu la c'est parce que da bëgg Macky Sall la. Hmm. am na ay sénégalais yu nekk fii bëgg Macky Sall kenn woowu leen. Hmm. dafa am ay tuuma yoo xamante moo tax ñu woo la biñ la wooyee ñu dégg ne nangu ngaa fay vingt-huit million mhm. du dëgg yëkkati nga ko joxe ko mhm. boo génnee loolu nga xam ne moom nga waxoon nit ñi ne mhm. amut léegi lan moo xew ci diggante bi ba tax nga fay vingt-huit millions yooyu sénégalais yi loolu lañ bëggoon a xam waaye du damaa bëgg Macky Sall maître El Hadj Diouf mi ko baax la avocat kañ li ko war rek la de waaw défendre client défendre la loolu yëpp nga wax ko mais li nga xamante ni bi moo jaaxal nit ñi lii information bi danga ko faa ba mhm. waxoo ci mhm. te loolu la nit ñi bëggoon a xam parce que man bi may déglu dama bëggoon dama ne dama ne euh, dina wax xanaa waaw li xew li xew lu tax mu joxe vingt-huit millions yi lu tax mu joxe ko Assane wax na la ko te comme que moom ku set la mhm. góor gu set wecc la goo xamante ni gii garmi la mais dégg nga doon ak ab géwélam mu koy way di ko tagg di ko kii. mais déggoo leen koy wax ci deret noonu li Assane wax moom ay Assane ay waxam lay wax man jéeg laay wax. waaw mais non dama ne lim la mais mais yoon wi mu la yoon la. yoon man mooy sa wu ñu téye. yoon ni la kat boo joxee lee mu dem yow war na laa jaral nga joxe ko mu dem. doon mu jéegi lim ñu wax lim mu wax laa xam nga waxuma li Assane wax Assane Assane moom day jël ci neexum xel. di jéem a defar man nekkuma ci moom defaram gi mu defar mais ki ñu téye laa daa waroon wax ci yëf yi. dafa waroon wax ci yëf yi. moo lu tax mu joxe ko. waaw lu tax mu joxe lii. comprendre. wax na ko bañ a tëdd. dafa xam ne bu tëddee njariñ li. ah wax na ko ci élément bi. damaa bañ tëdd wax na ko ci élément bi. ma <laughs> tëdd si kaso bi te war a jub élection yi war a campagne buñ ko tëjee njariñ li du bari. asad asad deex day defar rek ka ko jubbantee ka kii waaye xam na ni xam na ni moom mii envoyé na ma. loo xamante ne bi ba déggu avocat xam xam waroon naa wax parce que la mu wax ci ojo boobu Assane envoyé ba audio boobu <laughs> dégguma ko ñu wax mu wax ko ci penc bi ah. ci am audio lañ la <laughs> léegi ci audio whatsapp la ñuy leeral ay yëf yi ah, ah dañu bàyyi journaliste yi waxuñu leen l'essentiel léegi ci ay audio whatsapp Assane mii envoyé na ma ab ojo ña ngi ci groupe yëpp waaw léegi ñu ngi ci kii yee di leeral ci ojo yi Assane xaw ma fu mu jëlee audio bi xaw ma dafa bokk ak ñoom groupe <laughs> xaw ma qu'est-ce que en tout cas daal man daal wax dëgg fa yàlla léegi daal bu xibaar yi kiiwee ku yemu bàyyi fi média yeeg yëpp wutali groupe ya déglu Assane parce que daal fala audio yi di génn fala affaire yi daal man foofu laa déggee affaire yi man waaw man maanaam yëf fay moom day teeyal xelu ñu bari moom waaw foofu laa ko déggee parce que boo nee defuma waaw bu ñëwee fay nga somb daanaka somb bi rek Mhm. am na ñoo xam ne seen xel day naan lu tax nga fay. waaw waaw. moo tax man xam nga su maa ngi tooñ sax naan ko moo Modou loolu de agression la xanaa bu fekkee nee na du moom boo jëlee fanweeri million da nga ko agressé kon. mais nag comme ah. en tout cas daal xam naa ni ba mu demaatee ba toog. Hmm. dégg na lu wuteeg kii de parce que dafa naa ni géwél ba moom ñaata yoon la ñëw benn yoon la ñëw. géwél ban ki ko doon tagg am na ku ko doon tagg première kii bi. Hmm. géwél bi ko xaw ma lan ak lan xaw ma toor xaw ma géwél bi kan la ah dama xam fa ci bunt ba la demoon di wax ah am moom dafa première kii bi bi muy wuy hmm. première kii bi dafa àndoon ak ay kii hmm. moom géwél yi na ko tàgg di ko wax ne ko xaw ma lan toorodo am na tàgg nañ ko de <laughs> ba kañ ko de mais wax na ci garda bi bi de ci métti gaay moom buñ la waxee méttitu garda bi wax na ci de karo yi ngay tëdd xam nga ne alaaji ku mel ni jéggi mii nga tëral ko ci karo waaw waaw xam nga garde à vue moom gars yi ñu ñu bari ñu ngi ci wax. waaw mbir la yoo xamante ne ak nee na kañeer yi la romb ak yooyu. waaw mbir la yoo xamante ne yooyu moom war nañ ko xoolaat quoi. parce que loolu moom mbir la yoo xamante ne bii ñëpp tamit aussi ñi nga xam ñi génn nañ ñu bari dañ koy wax te xam nga pareen saa mën nañ fa yóbbu koo xam defut dara. Mhm. defut leen quoi comprendre. Mhm. bon war nañ leen a war nañ mën a wut ci kii tamit foo xam ni fu nit war a mën a nekk la quoi. Mhm. tamit foo xam ni jaadun loolu moom. ñu ngi koy wax nguur gi aussi ñu taxaw ci yu mel noonu quoi. parce que tamit euh, nit ak lu mu mën di def it ak tam parce que nit moom fekk kii waguñu ko. Mhm. daanaka defut dara. dëgg la même sax ki def dafa am àq ak yelleef. Mhm. xam nga boo gisee booy bi ñu génn fii prison di nettali nekkin wa ñu nekkoon xam nga yooyu jaaduwut. Mhm. te loolu déggoon naa ministre de la justice mu ne dinañ ci taxaw xool fexe pour nekkin yi nekk nekkin koo xam nekkin gu. jaadu la parce que prison bee ngay gis am na ku defu dara ma nga fa comme li Assane di wax mhm. am na ku def ma nga fa mhm. mais il faut nga sóoraale euh, même bu du dara nga sóoraale ak ak yelleefu nit ña nga xamante ne bi ñoom ñoo fay nekk waa mhm. xool bu baax euh, naka la ñuy euh, naka la ñuy fexee de telle sorte ka nit ki bu ñëwee yooyu du ko jooytu quoi parce que nga privé nit ki liberté rek loolu lenn la. d'accord waaw maanaam ñu leen defal ay matelas yu nooy daal. waxuma ay ay nooy di ko defar cadre boo. Ah, mooy loolu kay mooy matelas yu nooy cadre bu kii la quoi. mooy matelas yu nooy maanaam fu nit di tëdd daa war a nooy. waaw fu nit mën a tëdd. waaw ah, mooy koy defar laa bu nooy. waaw bu nooyee baax na yooyu yëpp. problème sécurité waaw. Hmm? pour matelas yeeg waaw am na yoo xam ne problème sécurité la ñuy bañ parce que xam nga. ah waaw waaw euh, lu ni ay ceinture. ay yooyu dañ naan am yu bari yoo xamante ne dañ koy parce que dañuy bañ nga def euh, yenn. kii waaw laa sax yooyu yëpp dina wax nga dëgg. waaw waaw wax nga dëgg de nee na problème de sécurité la jërëjëf. am na solo